Iba Barry Camara maa ngi lay nuyu. Iba Barry Camara nga nekk juriste nekk enseignant en droit privé ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar bu mhm. njëkk bu ma lay laaj mooy naka nga gisee euh, organe de contrôle yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal mën naa si tudd euh, Cour des comptes inspection générale d'État OFNAC ARMP ak yeneen ak yeneen euh, ban jàngat nga am ci corps de contrôle yooyu la. waaw mais euh, waaw euh, maa ngi leen di gërëm la sant mais code de contrôle yooyu xam nga yooyu euh, soo gisee ñu naan la état développé na wala état avancé na wala nekk na état ci genre question yooyu noonu suñ koy suñ koy mën a apprécier mu nekk nii yàlla ñun daf ñoo may benn affaire moo nekk nii très tôt ñun nous avons été un état démocratique et républicain ñëw nañu xool en fait lan yan lan moo war pour que suñu ñi nga xam ne ñoom ñooy njiit yi ah, ñi xam ne ñoom la ñuy jox ay responsabilité ñu xool fan lañ leen di teg ba nga xam ne bii seen liggéey dinañ koy def sans pour autant ñu porter préjudice li nga xam ne bii moom mooy population bi donc organe de contrôle boobu ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo nekk ci kaw ñoom ñooy njiit ñi xam ne ñoom ñoo war a utiliser suñu budget les deniers publics ñoom ñoo ko utiliser xam nga xaalis dafa nekk seytaane su fekkee nit di jox nga nit ay responsabilité nit ki en fait su fekkee ni xam na seytaane dafa xaw a bë dafa bëri doole su fekkee ni encadré woo ko nit ki mën na yaakaar ni xaalis bi moom moo moom mu siy def lu ko neex te léegi nag ñun très avant tous les autres pays même euh, avant certains pays même di di développé ñun Sénégal dañoo am euh, en fait kii moom xara euh, xarañu ñëw créer effectivement structure yooyu maintenant loolu loolu man day dikki ni dañ mais dañ ci sant yàlla ah di di féliciter effectivement organe yooyu mais nag il faut pas que mu nekk ay organes yoo xam ne yi wala même su fekkee ni principe bi baax na kooku noonu dañuy dañ dañu koy dañ koy sant yàlla di ñaan ñu renforcer seeni i ak seen i compétences mais il faut pas que organe de contrôle yi ah ñu nekk rek organe de contrôle yoo xam ne dañuy vide mu nekk ay coquilles vides nga xam ne nii su ñuy defee li nga xam ne moom lañ leen di def suite bi du am. Mm-hmm. parce que ñoom dañ leen fi teg parce que ñoom euh, du ñu buum di bumi ñoom dañuy rek dañu buum wan yoon bi pour ñu xool naka la yëngalee situation yi nga xam ne moom la ñu constaté. Mm-hmm. su fekkee ne nag ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo war a assurer suivi bi defuñu ko su boobaa nag euh, ñoom seen seen rôle. du ma xam donc en fait lan lay lan lay tekkeeti. Mm-hmm. te nag depuis quelque temps Sénégal dafa mel ni en fait euh, si noonu la demee. fi mu nekk nii y' a y' a tellement de contrôle dama lay wax ne la su fekkoon organe de contrôle rek la si la ñu xoolee pour xool ndegam euh, euh, ñu ngi def une gestion euh, en fait une gestion claire ah donc de nos deniers publics donc la avec ces ak kii bi nu mu tuddati ak organe de contrôle yooyu mais dañu sante yàlla bu baax a baax mais nag il faudrait que ñuy respecter li nga xam ne lii moom la ñuy jàpp comme conclusion ak recommandation ak ak directive yi nga xam ne moom la ñuy jox autorités yi. Euh, ci sa xam-xam Iba Barry Camara est-ce que euh, organe de contrôle yooyu est-ce que crédible nañ est-ce que lépp li nga xam ne ñu ngi koy wax mën nañoo jàpp ni dëgg la waaw wala déet. non war nañoo mën dëgg la. Hmm. parce que euh, ce sont des gens qui sont assermentés. da nga xam nga dafa ñu ko xam ne kii. Hmm. da koy ñëw xool moom amul kenn ku mën a defloo dara affaire parce que ñoom ils travaillent en collégialité. ba nga xam ne bii en fait normalement autonomie ak indépendance loolu daf leen dafa nekk loo xam ne bii daf leen caractériser kenn war leen jox ay ordre ñu def loo xam ne lii naka suñu xam nga nag nit nag moom dafa xaw a doy waar xam nga nit yow mën nañ la jox indépendance mais yow nga nooy nooy boo xam ne bii ku ñëw xoola même su la géree sax nga mën a en fait nga mën a wàcc li nga xam ne kii moom mooy sa wareef mais yaakaar naa ni nekkul loolu en fait au niveau donc de ces organes de contrôle parce que ay nit ñoo xam ne ñii ay nit ñoo xam ne ay nit ñuy référence dafa nekk ba nga xam ni lépp loo xam ne nii wax nañ ko mën nañu jàpp ni effectivement dëgg la parce que nekkuñu n'importe qui ñoo xam ne ñii xam nañu sens responsabilité yi xam nañu seen indépendance ak seen autonomie ba nga xam bi liggéey bi nga xam ni moom la ñuy def ah même su fekkee ni sax parfois euh, du méngoog bëgg-bëgg politiciens yi ñoom ñu ngi koy def autant que peut se faire malgré en fait euh, euh, problème bu obstacle yi nga xam ne ñu ngi leen di yëpp ba nga xam ni man yaakaar naa ni yaakaar naa ni ba fii ma toll nii lépp loo xam ne wax nañ ko parce que man je suis républicain yaakaar naa ni lépp loo xam ne def nañ ko rek macha allah mën nañ wax ni effectivement dëgg la. Aminata Touré moom IG daf ko daal di épinglé nee nañ deux milliards euh, ci suñuy koppar yoo xam ne dafa dem ci ñoo xam ne xamuñ exactement ñan lañ en tout cas mooy euh, jàngatu IGE naka nga gisee lool ci Aminata Touré bi mu nekkee ci boppu conseil économique social et environnemental. non c'est que xam nga euh, loolu nag moom tey jii loolu moom moom gën a énervé. Mm. parce que Aminata Touré depuis que mu fa jógee ba tey. ah dafa nekkoon nag après après kii bi nu mu tuddati waaye le régime en place mm-hmm. mais depuis kenn mosul wax affaire yooyu te même vous vous rappelez bien bi muy quitté euh, nu mu tuddati kii boobu nu mu tuddati conseil dafa ne woon ñëw leen ñëw xool ma mm-hmm. xayma ma pare ma doon xam ma xoola ma doon a dem. coow li woon. Mm-hmm. waaw mais à son temps kenn deful woon dara. ba tey jii nii bizarrement comme par hasard. mu ñëw ne léegi donc euh, adversaire la damay damay présenté wu candidat parce que léegi nekkuma président rek. Mhm. ñu commencé génne ay kayit naan dugg na fii génne fii. Mhm. affaire boobu noonu IGE boobu. rapport boobu kañ la kañ la date. Mhm. il faut ñu xam ko. également lan lañ koy reproché. xam nga fu mu nekk nii euh, Sénégal classe politique bi parfois dañuy utiliser ay ay armes qui ne sont pas conventionnelles. ñëw taxaw ñëw déjà soo ñëwee taxaw suba teel ñëpp xëy ñu naan euh, euh, Aminata Touré a été épinglé kooku mbokkam yeeg moom si boppam ñu ñëpp même su fekkee ni day dem ba si xam ne sax du dëgg ah xëy na mais ñëpp jàpp nañ effectivement épinglé ko fu mu nekk taxal nañ ko est du politique bi du loolu ñu xam ne nii affaire est-ce que loolu ñu xam ni moom lañ koy moom lañ koy reproché est-ce que loolu la waa IGE wax wala loolu am na wala loolu amul parce que xam nga yooyu yëpp problème la mais nag c'est simplement. Hmm. nga ñëw ah ñëw ne épingle nga ñëw taxaw. taxal nit ki doomu doomu aadama bi. alors que son temps bi muy quitté nee nañ ñu leen xool man hmm. dama xoola dama weex tal hmm. kenn mënu ma reproché dara ñu toog ba tey ñu wax yooyu man loolu loolu dafay dafay tey sama xel. dafay tey sa xel waaw. Mhm. dafay dafay tey sama xel ba nga xam bii man dama ne dama ne. Mhm. c'est pas parce que ay dañu nekk ci politique que tous les coups soient permis gis nga au-delà donc politiciens yi ñun état la yor du ñëppay politicien nag mais ñi nga xam yi ñoom la ñuy fal souvent ay politiciens lañ mais nag état bi dafa am ay règles yoo xam ni dañ ñëpp dañ ko dañ ko war a respecter mais su fekkee ni dañu bëgg utiliser moyen wu état bi. pour contraindre ay adversaires pour écraser leen pour yàq seen dara pour euh, pour takkal leen yooyu noonu su fekkee nekk na ci état loolu du baax euh, Sénégal depuis quelque temps loolu la ñu constaté ku nekk ñi lay takkal ku nekk ñi ngi lay jiiñ affaire yoo xam ni c'est du n'importe quoi ñii ngi ñii ngi déprimé fii ñu leen di bàyyi ñii duñu duñu def dara ñu tëj leen non c'est que il est temps de s'arrêter parce que fi muy jëm ñun suñu démb ak suñu tay la ñu xam waaye ëllëg kenn xamul waaye su nekk nii li muy xeeñ nii neexu xeeñul neex. te nag Sénégal bi ñëpp ko bokk moomu ko ah euh, bedd ñenn ñi ñëpp ko bokk il faut que ñëw taxaw nag ñëw xool justement fan la ñu toll Sénégal bi fu mu nekk nii les choses vont de mal en pis te kooku noonu xool ku ko wax xam nga ni dëgg la ku ko xool tamit xam nga ni dëgg la. fu mu nekk na kaawu kaawu kaawu. Aminata Touré bi mm-hmm. nii. non la loi c'est la loi léegi nee nañu IGE IGE lan la wax parce que xam nga fu mu nekk nii je rappelle simplement que IGE xam nga waxul ñu poursuivre kii nu mu jënd Khalifa Sall par exemple. exactement mm-hmm. mais que pourtant xoola dañuy ñëw taxaw xoola ne par force dañ koy dañ ko parce que bëggoon nañ taxal. alors que am na ñeneen ñoo xam ne ñi da yeneen recommandation du même genre la kii mais kenn toppul la xam ne bii je dis exactement que ñoom ñi ngi def seen liggéey mais ñi nga xam ne ñii mooy comme ñu ko waxee sànq ñoom ñoo war a assurer suivi bi en fait conformément au euh, en fait à nos à nos règles républicaines en fait ñooñu souvent ñoom ñooy sooxe mbir yi léegi nag su fekkee kii na mais li nga xam ne ñoom la UG e wax nañ ko si nañ ko si topp rek ba xam c'est moins ça. Et puis il faut donner donc la, possibilité donc de se de se défendre avant une épingle épingle épingle Euh, professeur ba léegi sax dañuy des ci mbirum rapport yooyu cour des comptes gis nga euh, génne woon temps yële ab rapport euh, di wax ni nag force fonds force Covid 19 bi lu si bari dañu ko détourné fa mu war a dem demu fa coow li nag bari na trop yow naka nga gisee lu ni mel parce que njiitu réew mi sax wax na Amadou Ba na suivre mbir mi Amadou Ba ni ngi ni démb doon na waxtaan ak société civile bi ban jàngat nga am ci détournement. fonds force Covid 19 bi nga xam ne waa Cour des comptes ñoo ko wax. mais mais loolu soxna si soxna si xam nga yooyu yëpp ay nguddal la parce que xam nga par exemple euh, le premier ministre su ñëwee gis euh, société civile bi pour information wak ah wala président ñëw taxaw naa publier yooyu yëpp xam nga ay par ay lan la ay nguddal la rek moi je dis nii les choses sont suffisamment claires waa cour des waa cour des comptes xoola ay nit ñoo xam ni ay homme de valeur ay ay def ay femme de valeur ñoo fa nekk xam nañ seen liggéey def nañ ko ak xarañte donc léegi li nga xam ne bii moom mooy moom mooy suivi bi lan la mooy ñi nga xam ne ñii ñoom la ñuy moo moo la wax def nañu xoola mais nañ leen topp parce que ñoom tooguñu rek ñe xoola gëmm rek ne kii def na kii deful non dañ ko teg ci affaire wóor donc loolu noonu amul gouvernement ñëw taxaw naan dafay défendre boppam parce que dama lay wax na la benn affaire c'est vrai que du ay décision yoo xam ne moo lañ jël mais nag cour la yoo xam ne mii ay euh, donc personnel bi ay euh, statut magistrat la ñu yor ba nga xam bi donc euh, li ñu kii kenn war ko mën a contester loolu ñu wax loolu la te puisque loolu la donc mi ngi réel ak yonent bi mais pourquoi du ñu dem ñi nga xam ne ñoom ñoom lañ ci moom lañ ci cité nañ leen nañ leen poursuivre te fu mu nekk nii sànq bi yaa ngi wax ne ma Guy Marius Sagna ak kii Aminata Touré dañoo saisir kii bi ba tey il n'y a pas de suite mais man loolu tamit man dama pour mais l'Assemblée nationale waruñoo sax xaar ba gi wala wala wala un wala deux membres euh, assemblée nationale sax di ko saisir pour ñu monter benn kii nu mu ci tuwaay benn assemblée pour pour en fait pour voter benn résolution mais résolution mais kooku cela va le choix ñoom loolu bi affaire bi génne rek. xoolal la ñu waroon immédiatement immédiatement parce que dafa am ay ministres yoo xam ne yii en fait ils sont en fonction yoo xam ne ñii affaire bi dafa leen euh, dafa leen dafa leen concerné mais également ak seen i complices mais ñooñu noonu kay ngir yàlla jëlante bi nañ nañ voté résolution bi. maintenant traduire leen devant la haute cour de justice ñi nga xam ne ñii nag ñeneen ñi la ñoo xam ne ñii il ne relève pas donc de la haute cour de justice ministre bi na wax ministre bi na wax euh, kii mu donc mu ouvrir une information par par l' intermédiaire donc du juge d' instruction ñi nga xam ñoom donc ñoom la ñu war a poursuivre devant les cours et tribunaux ñu poursuivre leen te terme nañu waaye ñëw taxaw di jéem a justifié wu di jéem a expliqué loo xam ne lii ñoom waa Cour des comptes investigation yi ñu si def ba ba ba euh, jël rapport bi mais kenn laaloo am temps pour def ko ñoom li ñuy ñoom ñoom mais li ñuy def ñu xam nañ que ah donc léegi le problème moo di kenn rek ah euh, le na jël toutes les mesures pour que effectivement li nga xam ne lii moom la kii wax nu mu tudd waa euh, rapport bi wax au moins ñu jéem a respecté gars yi nga xam ne ñi ils sont ils ont effectivement détourné waa détourné laa wax parce que ñi nga xam ne ñii dañoo def faute de gestion ñooñu ñoo ñooñu jiyee leen condamné autrement mais ñi xam ne mii dañoo ñëw détourné ne deniers publics mais ñooñu il faut ñu waxi ko il faut ñu waxi ko c'est que c'est amul amul amul amul négocier parce que waxu noonu soo ko soo ko defee ëllëg si biir Sénégal kenn dootu respecté règle yi parce que état dañ koy xam ci lan si liggéeyam mais su fekkee nag yow ñii épinglé leen wax nañ leen ñoom ñoo def nga ñëw taxaw di leen di leen utal ay prétexte naan leen noo ñii dugg na fi génn fi mais non l'Assemblée nationale il faut que moom dafa war a autosaisir ñëw euh, jël benn résolution ñëw voté en fait euh, voté ñi nga xam ne ñoom ñooy faire partie de donc euh, de la cour de la haute cour de justice ñi nga xam ne ñi mooy ministre yi ak seen complice ñu mën leen a jugé ñëw xool naka leen kii ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi defar si yeneen kii si kii si ay si ay nu mu tuddati si ay cours de tribunaux yi tel que correctionnel mais ñooñu tamit ñu yóbbu leen foofu jugé leen te mën a ñooy eh te kay wax la de mm-hmm. tey li nga xam ne mooy si yëpp solo. mais xam nga xam nga dañ ne la alof Ndiaye dafa ne sàcc nënd yomb na waaye fa nga koy tëddee moom moo moom moo jafe. Mhm. mais pourquoi pas ñu également ñëw euh, kii nu mu titi euh, ñëw saisir en euh, fait CREI yi pour que mun investir def ay investigation ñëw xool bien yi nga xam ni moom la gaa yi am ah fan lañ toll ak fan lañ koo kii c'est sûr que bien yooyu nekk na fenn mi ngi seen compte wala mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi xel par Et, et j'ai dit également autre chose que le, le ministre. Le ministre. Seul ne peut pas euh, pouvoir saisir ki nga xam ne kii moom mooy moom mooy le procureur mais euh, kii nu mu tuddati waaye l'agent judiciaire de l'État mais c'est l'État qui est en fait euh, qui est effectivement concerné Alors, euh, ce sont les deniers publics yoo xam ne bii État moom moo moo ko war a gérer mais pourquoi euh, l'agent judiciaire de l'État ne va-t-il pas lui saisir le juge d'instruction pour ouvrir une une information c'est une possibilité également donc pour dire simplement que yooyu moyens yooyu yëpp mën nañ ko am l' essentiel moo di que ñi nga xam ni ñëw dañoo ñëw yaakaar ni sénégalais yi xoolal dañu liggéey pour ñoom ñoom ñu nekk wala ñu liggéey sénégalais yi lu sénégalais yi kii ñu dugal ko yaakaar ñoom rek ñoom rek bëgg mais ñooñu il faut qu'ils soient sanctionnés kooku amul amul amul mbokk amul sama xarit amul kii mais il faut que la loi soit dite c'est pour moi ça maintenant tout en respectant les règles de procédure yi nga xam ne moom la établir loolu rek la. voilà euh, professeur FM mi ngi lay jaajëfal. merci madame jërëjëf. ok <laughs> may fàttali ni de euh, euh, juriste nga enseignant en droit privé ca université oh. Cheikh Anta Diop bu Dakar.